ziar ñëpp di nuyu aussi Thiès Info di leen remercier euh, par rapport ci tiis bi nga xam ni ñëw ngeen fi tey jii euh, jëluñu may présenté wu tudd El Hadj kër Diallo nekk direction régionale bu poste fii ci Thiès tey ñu ñëw représenté sunu directeur régional di élage Hadj Abdoul Aziz Seck ñuy waxee ci turam waaye doyatuñu ñu ànd ak forte délégation ñëw tey ci tiis bi doon jaale si ki nga xam ni moom mooy Cheikh Cissé Cheikh Cissé kenn la woon ci direction régionale bu poste kenn la woon aussi ci biir dëkk bi waaye kenn la woon aussi ci bureau yu pos yi nga xam ni moom moo nekk ci direction bi yëpp tey kuy postier tey kuy postière aussi kuy camarade tey jii soxol fees na tiis bi dafa dal ci kaw ñëpp moo tax li nga xam ni tey moom la am ca cimetière rek ba nga fa demee postiers yu nekk ci Sénégal yëpp ñu ngi fa woon waaye rawatina aussi ñu yor seen téléphone fu waay nekk mi ngi woote kon tey tiis bi tal na suñu kaw waaye tal na aussi ci nga xam ni mooy kaw ki nga xam ni moom mooy le directeur régional bi nga xam ni mooy El Hadj Abdou Aziz Seck kon tey ñu ngi jaale Cheikh Cissé njabootam ñu ngi koy jaale ay xaritam ñu ngi koy jaale képp koo xam ne mooy ay mbokkam ñu ngi koy jaale it woy juram waaye ñu ngi koy jaalee ñi nga xam ni tey jii mooy ñi ngank mooy receveur yi nga xam ni tey ñoom ñoo nekk ci direction yi ñu ngi leen koy jaalee aussi waaye it rawatina suñu njaal indi nañ ko waaye képp koo xam ne tey mooy ci bureau de poste yi moo xam muy post finance moo xam muy EMS fépp foo xam ne muy groupe La Poste tey ñëw na di jaale si ki nga xam ne tey moo dem muy Cheikh si muy Cheikh Cissé suñu xol fees na xolu ñëpp fees na waaye rawatina aussi xolu waa këram kon tey ki nga xam ne mooy El Hadji Abdou Aziz Seck mi ngi jaale mbokkam xaritam di yit nitam waaye di xaritam boo xam ni xarit bu yàgg la ci moom mi ngi koy jaale njabootam Cheikh Cissé relation bi nga xam ni tey moom la amal àddina moom la am ak sénégalais yi moom la amak ñi nga xam ne ñoo ay xaritam dafa bari foo ko natt rek passé na ko kon tey ñii muy waa euh, waa Pire tey di jaxu di receveur am ñi ngi ko koy jaalee moom aussi rawatina moom moo ko tuddee woon jëwrin kon noonu mu ko tuddee woon tey jii mu dem ci bis bi nga xam ni tey bis bu tedd la ndax nekk ci laylatul xadri taxaw photo wu ne man kat valide naa laylatul xadri yi nekkati suñu borom xamoon na ni yónnee woon na malaaka bi nga xam ne moom moo ko war a jël si ci biir ñi nga xam ne moom la bokk laylatul xadri kon tey loolu ku nekk bëggoon nga bisam bi waaye tey Cheikh Cissé moo tëmbeek bis bu rafet boobu kon ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla xaaree aljana mu nekk ci bis boo xam ne tey dafa nekk ci bisu euh, laylatul xadri tombeek bisu alxamis tombeek bisu ajjuma ñu rob ko ci bisu ajjana ajjuma kon yaakaar naa ni kon Cheikh ñu ngi ñaan yàlla mu dara tawul Cheikh dem na quitté nañu waaye yaakaar naa ni yàlla na ko yàlla xaaree aljana suñu xol nag fees na xol ñëpp fees na kon tey témoignage boobu maa ngi koy defee ci turu direction régionale waaye maa ngi koy def aussi ci turu postiers yi ak ci turu postières yi di ko defee aussi ci turu groupe La Poste di ko defee aussi ci turu post finance rawatina bureau poste de Pire bi nga xam ni jaxu moom moo ko yor tey di ko ko jaale aussi loolu rek moo doon témoignage yi ñu ngi santaat bu baax di gërëmaat bu baax ziar général bi passé sama kër la ko defee wax dëgg yàlla doon wax dëgg yàlla màggal ki nga xam ni mooy guddi yonent bi doon ko màggal kon tey Cheikh yamul foofu ñoo nekkandoon bu yàggul dara ci délégué yi nga xam ni mooy délégué au niveau national par rapport ak SNTPT tey aussi délégué bi nga xam ne tey jii moo fi teewul aussi site poste moom it mi ngi fi kon ci biir formation boobu yaakaar naa ni mag makati bi ñu ñoo nekkoon mu ni woon sama néeg lay néeg sama néeg lay fanaan ba mu yàgg mu ni su fanaanee sama néeg damay xëy ba guddi ma dàq ko kon ci néegu ki nga xam ne mooy makati ndooy muy le receveur de Tivaouane ci néegam la mujjee fanaan waaye rawatina mu nekk di attaayal ku fa doon nekk tey chef si sama la doon attaayal moo doon attaaya moo doon def lépp di joxe te ñëpp xam nañ ni suñu góor gu baax muy Cheikh Saliou Mbacké lu mu daan jëlee loxo bu tedd ba daan ko xelil café di ko jox ñu ñuy naan ñu laaj ko lu tax lii ñu ni ku bëgg yeewu bu baax wala ku bëgg sa teraanga ëllëg ca aljana lii day koy faral di def ndax koo koy def rek yàlla dina ànd yow kon Cheikh loolu mu doon def tey ji yàlla bu mu nekk lu muy rëccu fu mu nekk yàlla na ko yàlla malaaka yërmande teeru yàlla atte ko ci yërmandeem loolu rek moo doon kàddu yi nga xam ne maa ngi koy wax ci kàddu direction régionale bu Thiès. mi ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant ak foo mënti toll ci àdduna di remercier bu baax a baax site bi nga xam ne mooy Thiès Info permettre ñu euh, ñu mën a vraiment jël kàddu def suñu témoignage par rapport ak suñu benn collègue qui n'est pas n'importe lequel yàlla dogal li mu dogal ci moom ñu nangu ko nag muy euh, Cheikh Omar Cissé tey laa soo a xam ni Cheikh Omar Foutiyou Tall lañ ko tuddee waaye juróom ko wax. waaye li may seede rek parce que Babacar li mu wax déjà mat na sëkk leneen lu ñu ci dolli rek répétition la euh, di ko sant moom tamit en tant que président commission sociale poste bi waaye di nuyu aussi kilifa yi nga xam ne toog nañu ànd en délégation à cause de Cheikh. ginnaaw ba ma sante yàlla ñaanal Cheikh yàlla yàlla na ko yàlla teeru àjjana àjjana firdawsi dafa am rek loo xam ne daf ma ko waxoon dañu toog di waxtaan. mu ne ma Samba Ndiaye ma ne ko naam fekk gàmmu Tiwaawan loon mu ne ma man ku bëgg sëriñ Babacar Sy la ma xoolaat cheikh mu ne ma billaahi wallahi taalaahi damay dem fiñ ñu ko denc muy xabroom euh, wax dëgg yàlla te baa sëñ Babacar Sy sor na ci man trop donc occasion bu mel nii laa ko mën a seedeel devant tout le monde ndax nag ku mel ni sëriñ Babacar Sy ak dayoom ak tolluwaayam nit am ci moom cofeel am ci moom bëggeel seedeel la ko ah bu seede jotee nag seede ko ba ñëpp dégg ko seede naa ko sànq ci kanam wooy juróom yaayam ne ma baayam xaatar la képp kuy kilifa diine ku nekk ci Sénégal ñu ci bëri tuddee na leen doom tuddee na ko ay doomam tuddee na ko Cheikh Omar moom mi Cheikh Cissé ma ne ko ci laa xam ne Cheikh Cheikh Cissé Cheikh Omar ko tuddee Cheikh Omar Foutiyou Tall donc loolu muy loo xam ne lu am solo la kon ñu ngi ñaan ci barki barke Seydi Aboubacar mi nga xam ne moom la bëggoon ci xolam sëñ Babacar si moom yàlla na ko teeru tax ak lan moo neex ci mbir mi li ma ci gën a li ma ci gën a neex mooy euh, wax dëgg yàlla dem na waaye dem na demin bu rafet képp kuy dund ñaan nga yàlla dem demin bu rafetee noonu ndax tàggoo semaine passée la ñëw poste seet si ñu yaa yaa pas de cela il est à la post kaf ak ñëpp reeg ñëpp foog ñëpp tey la ñu soog a xam def ñu doon tàggu Lamine Ndaw a versé de chaudes larmes aujourd'hui il a pleuré comme un enfant dañ ko doon consolé d'autres ont pleuré seen larme génnul waaye xam naa ne ñii fi toog ñëpp ku ci nekk say rongoñ mu ngi sa sa xol mu ngi jooy ndax Cissé modestie bi mu nekkee woon ndax Cissé mbaax gi mu baaxoon ndax Cissé yëg gi mu yëgoon nit ñi amul exception xamul frontière amul poste bii laay liggéeyee faalewu ma poste bee post yëpp la fonk poste yëpp la respecté poste yëpp la bëgg nga tàggoo dem laylatul xadri def publication def laylatul xadri validé ñu ne déet na waay muy weer wi gën ci weer wi yàlla jël la ca ca weer woowu jël la ci guddi gi gën ci guddi yi muy guddig laylatul xadri weeru koor moo gën ci weer yi guddig laylatul xadri moo gën ci guddi yi ñu denc la ci bis bi gën ci bis yi muy àjjuma kon ñu ngi ñaan ki gën ñëpp muy sang-sang yi ki gën ñëpp yàlla na ko teeru yàlla na ko teg ci loxo cheikh ahmadan tijani chérif radiyallahu taala anhu mu teg ko ci loxo mu teg ko ci bu dugal ko àjjana firdawsi yàlla na ko yàlla defal Cheikh mérité na lu ne nit ku baax la Babacar damay yokk nii rek mais li moo waroon wax yëpp wax na ko en tout cas ñu ngi sant ñëpp ñu ngi koy jaale ay waajuram di ko jaale waa post yëpp di ko jaale ay waajuram di ko jaale waa piir gi mu nekkaloon di ko jaale mun Njaay mu nekk Pire nga xam ne këram la daan dal mun njaay di sama xarit ñu ko koy jaale di ko jaale direction générale bi yëpp sans exception di ko jaale le monde sportif nag nekkoon na président ASC Arlem di ko jaale waa Bambara di ko jaale Serigne Modou Kara Mbacké Noreyni di ko ko jaale ndax nitam la xaritam la ñu ngi ko koy jaale bu baax a baax vraiment loolu daal moo doon kaddu yi maa ngi jégalu lu ci dëng rek xam leen suñu xol a fees moom mi sànq dañuy ànd jaxase na yoon bi ba ñ dem fii dafa jubal jëm hôpital jëm mu naan ma robinet gay mbay ma ne ko robinet gay mbay saa waay dëkk jaar fii kër gaa dem denc sawaay di ñibbi mu génnaat jaaraat neneen ndax jaxasoo fii ñi fi nekk ñëpp amul ku jaxasoo maka tey ne otom da ko bàyyi fa dugg suñu oto donc tu lii nekk na loo xam ne waaye nag yàlla moo ko dogal dañuy nangu dañuy nangu allahuma salli ala seydina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim noti comme noonu ngeen gisee témoignage bi direction régionale poste def ànd ko ak euh, démembrement yi nekk ci ñaari département yi muy département Thiès ak Tivaouane di témoignage yu ñu génn àdduna Cheikh Cissé nekkoon seen wëllëre am na itam yeneen wëllëre yoo xam ne bokkoon na ak ñoom ndax ku ko xam xamoon ko ci wàllu sport mu nekkoon ko disponible nekkoon sportif bu ñu ràññee ci biir Thiès tey ñu toog ak ay ASC Arlem ngeen bal ñu ñu nekk ak euh, Moussa Ndiaye nekk kenn ci moom nekk itam kenn ci ay ASC bi ñu bàyyi ko mu apporter ay témoignages wax ñu ci seex euh, ban année la ay ce bi nan la daan doxalee ak ñoom ci wàllu sport ak ci wàllu sigil AIC bi ci ay victoire fii ci diwaanu Thiès xam naa dañ leen koy jaar d'abord di ñaan fi mu tëdd yàlla wooye fa suuf ci kawam ñu koy jaayal mbooleem ku bokk ci AIC bi ak génération yëpp bàyyi ko mu présenté wu ak mbokk internetu Thiès info ginnaaw bi ñu moom naqar wi mu ñëw nag ci digganteem ak AIC bi waaye digganteem ak euh, nature humaine bi nga xam ne moom lañ bokk. maa ngi Ndiaye maa ngi juddoo kër sëñ nekk fi ci dirigeant yi nga xamante ne ñoo nekkoon Arlem doon football Arlem nekkoon ci dirigeant yi ba léegi ci dirigeant Arcos yi ci lañ bokk ñoo ngi ànd ak Dame Sougou ñu ngi ànd ak euh, euh, euh, membre la ci Arcos Ousseynou Ngom Basirou Ñing Mbacke la moo teg na la ci kaw Diagne moo toog noonu ci kaw Moussa Demba Ndiaye moo toog nii ci suuf ñoo ñëpp ay dirigeants ARCOS lañu entente Arlem Cosmos euh, d'abord di leen féliciter yéen waa Thiès Info di ñaan yàlla gën leen a jàppale yàlla gën leen a defal sutura yàlla gën leen a defal xéewal yi ñaan Cheikh Omar Cissé mi nga xamante ne moo fi jógee tey ci fajar yàlla yërëm ko yàlla jéggal ko yàlla xare ko àjjana si euh, dëkkaale ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Euh, di leen wax ne ñun seen mag lañu waaw ñun ñoom ak Cheikh Umar mais ñii nga gis ni ñii ñoom ak Cheikh Umar ñoom ñoo fubalandoo Arlem ay kade nekkandoo ba léegi nii ñooy ànd lu Cheikh di bëgg ñoo ko koy bëggal lu Cheikh di bañ ñoom ñoo ko koy wax Cheikh Umar nekk nit ku baax nit ku disponible nit ku am ouverture kër sëñ lay Arlem Cosmos Arcos jaral ko lu nekk ndax bi mu amee doole mën a fubal ku nekk ñëw na fi jël si ko pour mu dem fubali foofu mais dafa bañ toog Harlem waaw ñu di ko saaga di ko wax yoo xamante ne mais mu toog rek waaw nekk xale bu neex a nekkal xale bu dégg ndigal xale boo xamante ne bu duggee ci terrain bi da ngay defe ne gaynde la maa ngi fàttaliku am nañ final boo xamante ne keroog arcade bi dafa toj fii ñu bànd ko mais teewul noonu la joué final bi ba final bi jeex. relation bi nag ak nit ñi dafa am ouvertire tey ji fu mu romb rek bii ci guddi ci laylatul xadr bi ñun ñëpp kër Biraye lañ nekkoon di def laylatul xadr foofu ñu ngi ci véranda bi Cheikh Omar ñëw ci kaas bi waxtaan ak xale yi ci kaas bi ba pare bi mu waxtaanee xale yi ci kaas bi ba pare génnaat ñun ñu ngi koy gis ndekete bi mu génnee rek foofu la jeexale ñu ko ñaan yàlla mi nga xamante ne mooy mooy boroom xéewal yàlla mi borom sutura nekk borom tranga ci weeru. koor gi ñu nekk ci guddi gi lay retu xadd bi ci guddi ajjuma gi yàlla defal ko lu kawe njottam yërëm ko jéggal ko xare ko àjjanay firdawsi en tout cas Cheikh Omar day nit koo xamante ne wax ci moom dadul yomb parce que li tax wax ci moom dadul yomb dañoo jaxasoo ñun ñi ñëpp boo ñu fekkee doo xam sax ndax kii moo ak kii wala kii mag kii dañoo jaxasoo jaxasoo ba nga xamante ne am na loo xam ne soo ci bëggee dugg sax mën nga génn ay rongoñ donc di ñaan yàlla daal yàlla yërëm ko yàlla jéggal ko yàlla xare ko na di leen wax ne aussi monde sportif bi ñu bari gis naa leen fi Jigi Diagne moo yor 2 AST ASVT muy euh, benn groupe boo xamante ne ancien sportif de si la ah ñëw nañ fi wax nañ ne bu subaa dinañ ñëwaat indi seen jaal euh, grand Moussa Diagne ak ancien joueur yëpp ñu ci bari gisante nañu ñëw nañu ba ci ñun pour ñu gis leen. parce que dañoo jàpp ne ñoom bu ñu ma gisee rek fam Cheikh Omar dinañ xam ne kon ñoom ñëpp ñëw nañ fi donc euh, euh, ñu ngi koy ñaanal yàlla yërëm ko yàlla jéggal ko te xare ko àjjana encore di ko jaale aussi sëñ Modou Kara parce que il était très à sëñ Modou Kara man mii yenn saa bu ñëw sama kër mu waxtaan ak sëñ Modou Kara loo xam ne dina ci waxtaan ak man li ma gis ne moom laa ci war a wax ci lu baax ak lu rafet ma wax ko ci donc sëñ bi aussi ñu ngi ko koy jaal ah, dégg leen ko jaal di ko jaal ñëpp. je pense que su fekkente ne aussi am na koo xamante ne mën na ci dolliwaat leneen mu dolli ko mais ngeen xam ne daal kër sëñ Ablaye dañoo ñàkk lu bari ñoom sëñ Modou Ngom ngi fii ñëpp ngi ci biti parce que Cheikh Omar ñëpp daf leen a def comme boppam waaw ñun ñi ñëpp dañ ñàkk parce que li tax ñu ñàkk mooy ku mel ni Cheikh Omar koo xamante ne day mer léegi nga defe ne day toj dëkk bi dem wane ginnaaw ñëwaat dikk ne la baal maak commencé dafa jafe donc yàlla na ko yàlla fay xolam. yàlla dolli ko xéewal dolli ko sutura xare ko àjjana firdawsi xam nga xam nga football xam nga football niñ koy qualifié léegi ak niñ koy qualifié bu yàgg ba bokkul hmm? Cheikh Omar euh, man mage naa ko huit ans moo ko sama rakk ñëw maase donc bi may football ci équipe bi moom footballoon ci équipe bi mais xam naa daal vers les années 84 85 année boobu la Cheikh Omar ñëw ci di commencé jouer Harlem 85 86 année boobu commencé ci Arlem maa ngi fàttaliku am na benn marché Arlem Cité Senghor euh, non Arlem euh, euh, étoile ñu am penalti Cheikh jël penalti bi di ko dóor avant muy dóor penalti bi mu dem ci ci ci reporter photographe bi ne ko su may dóor penalti bi rek nag ma photo ñu jox Cheikh Omar bi mu dóor penalti bi mu dugg. arbitre bi bañ penalty bi parce que nee na reporter photographe bi dafa dugg ci terrain bi ndekete reporter bi dafa dugg ci biir terrain bi pour photo Cheikh Omar donc te warul woon a dugg ci terrain bi keroog waa koñ bi ñëpp dañuy dem ci photographe bi escorté ko ne ko buñ ñu gañee rek tey moom du baax ci yow Cheikh Omar ñu wax mu ne moom ci biti la ko la waxul waa ji loolu mais bi photo bi génnee bi ñu ko wanee photo bi il s'est rendu compte que ne waa ji koy photo moom mu ngi ci biir terrain bi donc euh, après mu ne mais dara dama bëggoon rek subi bi rafetee jox ma ko ah donc nit nit ko oyof waaw moom arrière central la doon jouer demi centre la woon te xam nga dafa am doole macha donc bu taxawee ci axe bi loo am doole doole doole dina la téye mais malheureusement dafa xawoon a tuuti quoi donc dañuy jouer match Harlem man maa nekkoon capitaine wala kii des fois su match jotee dama koy takkal brassard bi pour pour euh, mën ko gën a encourager pour pour bi wàññeeku mais c'était un bon joueur quand même mais boo xamee trac boobu ci moom euh, bon mën nga ko solal mais nit ko nit ko bëggoon li muy def la nag waaw ah, nit ku bëggoon li muy def la ku amoon fayda ci li muy def donc euh, euh, bëri na sax yu bëri yoo xamante ne di nga ko bëgg a wax mais xam nga ak ak nii mu demee nii day am yu bëri yoo xamante ne sa xel du ci demande nii wala soo su koy dem de façon ne lay doon quoi te de façon ne bi du doon li gën quoi donc loolu daal mooy. li nga xamante ne moom la ñu ko jaanalaat yàlla yërëm ko yàlla jégal ko yàlla xare ko àjjana firdawsi. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu maa ngi yëkkati ay kàddu nuyu ak kàddu ziara di leen ko jébbal mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan yëpp waaw tey de moom Sénégal ak waa Thiès dañu am tiis ndax euh, xew-xew bi dal suñu kaw yàlla dogal na suñu Cheikh Cissé dafa nekkoon suñu frère nekk suñu wëlëri nekk suñu xarit mais également nekkoon ku am njëriñ Thiès. donc amoon taxawaay bu yaatu ci Thiès ak ci Sénégal yëpp mais rawatina nag ci Thiès surtout ci kër Ablaye Yakhine nga xam ni quartier la boo xam ni daf fi amoon taxawaay yu yaatu taxawaay yi nag mu jëmale woon ko ci ndaw ñi mais également ci mën naa ni jeunesse bi ci sport mais également mu doon aussi koo xam ni euh, taxawaayu bi mu amoon ci askan wi aussi nekkoon na taxawaay bu yaatu ba tax na su yàlla dogalee li mu dogal ci moom dafay jaadu lu jàppoon ñu bàyyi ko ñëw bokk njaboot gi mais waa quartier bi. moo tey ñu ñëw ci turu président sa Seck ak président de la République pour ñëw vraiment indi njaal yi nga xam ni waa nguur gi mën naa ni ak kilifa réew mi yëpp am nañ ko donc pour jébbal ko fa famem mais également jébbal ko waa quartier bi ñu koy ñaanal suñu borom fa mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jóge yàlla na xippe àjjana yal na dajeeg malaaka yërmande yi donc yàlla na suuf sedd ci kaw. xam naa dañuy continuer rek témoignage yi gis ngeen waa postuline seede ci jëwriñ Cheikh Cissé seede Euh, ci nekkin gi nekkoon ci liggéey poste bi dégg ngeen également kii di le ministre de léconomie économie numérique monsieur ba jatara nekk itam kenn ci président Idrissa Seck ñëw teewal fi gouvernement bi teewal fi président sa Seck teewal fi képp ku dëkk ci Thiès bokk ak ñëpp nakar wi ñu ngi toog ak euh, sëñ Modou Ndiaye dëkk Pire moom itam vraiment ki nga xam ne moo génn àdduna di Cheikh se daawul jug xam naa dañ koy bàyyi rek mu indil ñu ci fàttaliku ci nekk daan nekk ñoom ñaar. ndax daawuñu tàggoo beneen bi ci des itam mu seede ci moom ndax nit bu demee seede ak ñaan nga man ci moom. asalaamaaleykum mbokki Thiès ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaar te di di leen wax inna lillahi wa inna rajo raji'un ah Cheikh Cissé moom pour ñu wax ci moom dina yomb ndax bari na loon xam ci moom Cheikh poste bu Pire lañ ko affecté avant muy ñëw poste bu Pire xamante nañ mu ñëw. wut fu mu loose mais bu dee lekk naan lépp sama kër la koy defee maam moom ñooy bokk ndogu ba minuit wi heure mu door a ñibbi kon Cheikh li ma xam ci moom bari na Cheikh nit ku baax la Cheikh am na xët-xët mais du ko jàpp Cheikh boo ko meree rek sax mu jaaxle Cheikh bu dee wax ci yow lu baax ma ngay jooy mbokkam yépp damay toog muy téléphoné di téléphoné kuy mbokkam rek boole na la ci benn groupe kuy xaritam boole na la ci benn group képp ku daan bokkal di fubal bokk ngeen benn groupe loolu mën naa ko seede ci moom ku baax rek mooy def loolu di boole nit ñu baax ñëpp ñaar ñu jote sax ma ngay dox ca diggante ba pour ñu juboo kon Cheikh nit ku baax lan ñàkk nit ku am yërmande nit ku mën a rafetal nit ku am diine vraiment euh, li monsieur le ministre wax rek fi mu jógee Euh, yal na ko fa mu jëm dàqal fi mu jóge voilà. kañ ngeen mujjee gisee ak loo leen waxtaan waxtaanee. Euh, Cheikh barki démb lan mujjee gisee ñoo bokk ndogoom ndoo mën ak moom ba min wi nangam mu dem la lendemain mu xëy liggéey poste ba 3 heures 4 heures mu déparé foofu ñëw Thiès bi mu ñëwee fii mu doon jullee ci xabru bi fi la daanu malaise ñu yóbbu ko hôpital mu wàcc xibaar bi nan la la di bi nga ko yëgee. waaw comme ci guddi gi la loolu am ñu yóbbu ko hôpital defe ne dina tane la matin lañ xëy ay 7 heures ñu woo ma ni ma Cheikh biig dafa daanu ñu yóbbu ko hôpital mu xëy yàlla def li gën ah mitti na loolu mais da ngay muñ sunu borom moom bu dogalee na la neex bu la naqaree da sonal te doo ci man dara kon lépp lu mu dogal rek na dëppoog sa bëgg-bëgg ba tey mbokk internetu Thiès Info ñu ngi wéyale témoignage yi ci génn àdduna Cheikh Cissé nekkoon euh, vraiment ku bëggoon Thiès nekk sportif dégg ngeen seede yi wax ci moom ñu ngi toog nag ak euh, jëwrin bi nga xam ni moo fi teewal Serigne Modou Kara Mbacké Noreyni di Serigne Modou Ngom ñu koy wax jëwriñ Modou Ngom mu nekk koo xam ni itam mook Cheikh daanaka ñoo bokkoon bëgg-bëgg waaye itam bokkoon ci li ñuy yëngu muy liggéeyab Cheikh Ahmadou Bamba Khadim waaye itam liggéey Serigne Modou Kara fii ci diwaanu Thiès xam naa dañ koy bàyyi rek ak mbokk internet yi ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan ci Thiès Info ginnaaw bi mu présenté woo mu daal di ñëw nag indil ñu ay témoignages ci jëwriñ ji ci nekkam ak daayira bi waaye taxawaayam ak parti bi di PVD di parti bi nga xam ni Serigne Modou Kara Mbacké sosoon na ko ngir nag bëgg indi ab liggéey ci ni Sénégal di doxee ci wàllu développement xam naa ñu ngi koy bàyyi rek mu ak gi mu présenté. ñoo ngi nuyu waa télé bi di te nuyu waa ñii leen yabal di leen sant bu baax ci ñëw gii ngeen ñëw ci waxtu wi ngeen ñëw ci dëj bi xëy na fi ngeen nu fekk sax xol yi tooy na ba li bëgg a wax yëpp duñ ko mën a wax waaye leen bëgg a daal mooy seex nit ku baax la digganteem ak sëñ Modou Kara nag seex taalibeem la ndax la daan wax sëñ bi sëñ bi da koy wax nijaay. waaye dafa jaay nijaay jooju jënde ko ak taalibe ba lu sëñ bi nekk rek jàppale na ko ci ba ci parti bi ba ci dayire bi ba ci lépp kenn mënu ko ci dara ba barki démb bi ma faatu njaxas bi mu faatoo fan yi dañ sëñ Modou Kara mi ngi sol njaxas rek na wut njaxas sol kon di la ni mais nit ku baax la nit la koo xam ñun ci sunu kanam la defee lépp waaw ci sunu kanam la defee lépp kon euh, ku baax la ku rafet jukka la nit la koo xamante ni euh, ku gis tey bisam bi xool li mu am euh, kenn ku nekk war nga cee jàngataat jox sa bopp nit ñi li ko nit ñi faye tey kilifa gu ne fàtt na ci koñ bi waaye lii seex am nit ñi ko am defal ku mën a boole la koo xam ni seex boo ko gisee noonu mu mel ak xët-xëtam jëm jëmum lépp lu baax la kon ñoo ngi koy jaal ñëpp di leen wax ne kilifa gi euh, leen yabal ngeen ñëw fi ngir tas ay jukkoom xam naa daal ñoo ngi jàngat ci moom ay jukko yi ngi jàngat ci moom ku doy ku baax koo xam ne lu mu am jox ko nit mu mu sol bu ko sumee joxe na ko waaw koñ bi ñu nekk daanaka ku fi solul mbubam daal am wala nga jël teraangaam wala lu baaxam ba bërki démb la sëñ Modou Kara dana ko parti bi léegi cees yaa ko yor loolu barki démb la ko sëñ bi nommé mu ñëw ni ma sëñ bi damaa nommé ni ma léegi dama jox parti bi waaw kon nag ñoo ngi leen koy jaal di leen ko jaal bu baax a nga mën a fàttaliku ci moom ci ci daayira bi jaayante bu ci jaayante woon wala parti bi ngir mu law fii ci diwaanu Thiès. Cheikh dafa joxe woon boppam dafa joxe boppam ci daayira bi joxe boppam ci lépp màggal daaru mu sigi rek euh, dafa maanaam bi sëñ bi wax dafa xaaloo li ma gën a fàttaliku ci moom. dafa jooy jooy yoo xamante ni bi sëñ bi waxtaan ci Serigne Touba seex dafa daanu jooy fa jooy yoo xam ne jàpp naa ni foofu mu yegoon karoog bis boobu sax mënoon mënoon na faa ba mu nekkee xale la bokk ci dayre bi ba mu nekkee tout tànk juróomi at juróom-benn at ndax kër Sëñ Ablaay ku fi nekk am ci ñetti at wala ñaari at euh, yaa ngi yaa ngi ànd ci liggéeyu sëñ Modou Kara bi mooy liggéeyu Serigne Touba fii may waxee yow ci jumaa bi ñu nekk papaam moo tax ñu jot fi daf ko daan da ko daan wax di ko bàkkoo di wax ne man fii buñ ko jotee sans papa moo tax ba noppi nag di di ko lu luñ fi joxee mu def ko mbaar mi ñu nekk participé na ci bokkoon ci ñi si doon liggéey di joxe alalam di joxe léppam waaw bu dee ci parti bi tam seex ku nekk ko soxla mais day wax ni moom parti sëñ Modou Kara même bu fekkee ni parti bi du am kenn seex day bokk kon nag ñoo ngi koy jàllal waaw. dañ ko fas yéene ñaanal. suba nag lañ ko fa séenee ñaanal ndax sëñ Modou Kara ñu ngi jokkoo léegi ñu ngi ko déggee yabal na doomam maam Thierno eh, ab eh, taawam léegi la fi jógee soxna mu xayri njabootam gépp nag lépp lu mu am ñëw na waaw sëñ Modou Kara lu mu am ci dëkk bi rek ñëw na ak ak faneen ak faneen ci suba ba léegi téléphone yi mu ngi dem nu ne xam naa itam sëñ bi ñoo ngi koy séntu yaakaar naa bu ñëwul suba itam yaakaar naa ne lu ci tegu na ñëw ci léegi rek président Idrissa Seck. léegi la ma woo di ko jàll yebal na fi yànqoo ba jatara léegi la fi ñëw taali si la la fi jóge euh, moom itam leen war a def ci dëj bi def na ko moog seex boo leen laaj kañ leen commencé an doo ko xam waaw waaw maître Ousmane meer maire bi moom moom moom mooy moom fan yére la ma seex ne ma dama lay indil maître Ousmane Diagne naka tey Ousmane Diagne bu ma koy gis ci dëju seex laa koy gis ñëw na it joxe jaxalam Thiès gépp daal ñëw na nañu monde sportif bi tam ñëw na nañu ndax fii dafa am mbooloo mu fi nekk moo xam ne muy euh, Arlem ak Arcos bi leen boolee léegi Arlem ak Cosma tudd Arcos Cheikh da cee joué rôle bu rëy waaw parce que avant ñuy fusionné Cheikh moo nekkoon président te su bañoon fusion bi du am moom daal di leen wax ni daal Cheikh ku ku ku baax dem na ku baax a baax. Euh, li ñuy daal ci suba nag moom ñëpp Cees gépp ko yëgandoo Cees gépp ko am naqar waaye la ñu ngi jàll lépp toog di loxo yàlla. Cheikh Cissé sama xarit la woon Cheikh ko xam-xam xam ko ak man Cheikh li ñu boole moo bari Cheikh daanaka moo ma yar Cheikh euh, Cheikh Cheikhu Arlem la Cheikh Cheikh Cheikh sëñ Modou Kara la Cheikh Cissé vraiment man sama xol dafa sori tey parce que ma yeewoo suba lañ ma yeewoo ni ma ndax yëngal li xew ma ne la xew ñu ma Cheikh Libé moo noppalu ma sëg sëg samay dàll daw dem hôpital ma ñëw fekk ko ci morgue bi ñu ànd ko ànd ko fi ci morgue bi fii yàlla ko yàlla xar xaar àjjana yàlla ko yàlla jég yàlla ko yàlla yërëm yàlla na suuf sedd ci kawam rafetal ci moom njort ak ni mu demee yàlla bu ko cat jiitu yàlla ko yàlla xaar àjjana te jégal ko te yërëm ko yàlla ko yàlla xaar àjjana maa ngi leen remercier ñëpp vraiment fii soo fi ñëwee ñëpp ñëw Aliou Cissé vraiment foog fa mun daal chaque daal vraiment mun daal sëñ bi. waaw barakallah sëñ bi man maa ngi tudd oustaz Mouhamed Mboub dëkk Ersan ñu ngi wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di sant yàlla. mi nga xamante ni moom lépp mooma doomu aadama mën nañoo jànge ci nii lii fi xew démb muy xew-xew boo xamante ni ku ci nekk ci ñun na ko waajal ndax ku xamul fan la ak kañ la ak naka la dangay waajal sa bopp lan mooy waajal sa bopp nekk ci lu baax bëgg ñëpp sopp ñëpp yéene ñëpp jàmm ndax tey cheikh lu mu mënoon a am tey fa tabaarakallaahu bana ko fi ay jëfam rekk ñoo ko topp waaye alhamdulilahi rabbil alamin yaakaar mën naa am ndax weeru koor yàlla sunu borom tabaraka wa taala nee na tënk naa ci ñett yërmande jéggal ak ak njot ci sawara te woor na wooru yërmande gi woor na wooru njéggal gi nekk démb woor nekkoon ci njot ci sawara démb di laylatul xadar guddi gi gën junni weer démb tamit di guddi ajjuma tey jii mu fanaani ci bàmmeelam aljuma te yonent bi sa alayhi wa sallam nee na képp ku faatu aljuma nee na kenn du la mbugal ci sa bàmmeel te képp ku faatu weeru koor soo àggee da ngay fekk àjjana tijjeeku ndax yonent bi moo ko wax bu alja bu weeru koor jotee tëj nañu bunti sawara ubbi bunti aljanna kon nag cheikh a ngi nii am njàngat la kon ñun ñi fi des lu nu def lu dul bëggante soppante yéenente jàmm cheikh day bisam bi tey xamuñu lu ñuy am waaye ku fi ñëw ku ne damay wax ni ki gën a bon ci àdduna bi mbooloo mii nga xamante ni ñoo topp cheikh bu ñu ko ñaanoon dana ko bàyyi mu dugal ko aljana rawatina yàlla rawatina mu daanu ci laylatu xadar ci biir xabru bi ñu denc ko ajjuma guddi ajjuma fa tabarakallahu kon loolu yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam ñu ngi sant bu baax rawatina yéen ñi fi ñëw di waa Thiès Info yàlla yàlla defal leen tawfiix cheikh moo toll noonu nit ku ne nanga nga toll dañuy wax ni bu xabru ya feesee ci faatu la waaye bu sigil ndigaale bare kim bàyyi la waaye tey fi kenn xaju fi yàlla yàlla jéggal ko yal yàlla yërëm ko yal na yàlla xaaroo ko aljanna wasalaamualeykum wa rahmatullah mbokk internet yi ginnaaw bi ngeen dégloo Serigne Modou Ngom nekk ki nga xam ni moo fi teewal Serigne Modou Kara Mbacké Noreyni fii ci diwaanu Thiès waaye tam mu teewal parti bi nga xam ni daanaka euh, kii nga xam ne moo génn àdduna di Cheikh Oumar Cissé ñu gën ko xam ci Cheikh Cissé wax dëgg ci parti boobu la bokk dégg ngeen témoignage yi ci def ci liggéey ak xam naa soxna Kadia ñu fas yéene tëj rek ginnaaw bi ñu teewloo témoignage yi nga xam ni mooy barab bi mu doon liggéeyee di post di eh, nitam yi nga xam ne amoon naa ñoom cofeel ay ASC Harlem di itam le ministre Yankhoba Diattara nga xam ni kenn la woon ci moom di wëllëreem di itam jëwriñ bi nga xam ni ab sëriñam di sëriñ Modou Kara Mbacké di yaakaaram di nooree ni moom nga xam ni daanaka ci ndigalam la daan wéyale ab liggéeyam daan ko jaarale ci sëriñ Modou Ngom ngeen kàddu yi mu indi kon nag dañuy bàyyi rek yow bokk nga ci ñi nga xam ni ñoo ko mujjee dalal ci ay plateau fii ci Thiès muy cees info nga dalal ko fa ngeen def émission bu am solo defe naa ci biir corona bi la woon boo doon def témoignage rek laataa ñuy tëj très rapidement lan ngay wax ci ki nga xam ne moo génn àdduna. waaw euh, suñ Malick maa ngi lay ziar bu baax di jàll ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Cissé Cheikh Cissé dañ koy jàlle Sénégal yëpp ndax Cheikh Cissé Sénégal lépp la woon. comme ni nga ko waxee nag euh, nekkoon na nit koo xamante ni bañkat la woon nekkoon nag taalibe ndax loo wax mu ne Serigne Modou Kara bëgg lool Serigne Modou Kara fonkoon ko lool nekkoon liggéeykat moo tax euh, ginnaaw bi ma amee woon émission ak Thiès Info ba pare ak moom ndax nee faa nit di nga def moom Thiès euh, émission waaye amitié bi di continuer waaye moom ci boppam moom moo téye amitié bi mu nekkoon nit ku baax nit ku oyof nekkoon un frère en conseil macha allah dañu daan niroole sax léegi rek gis nga am na ku ma ne xanaa yow yàq euh, euh, Cheikh yéen a bokkoon yenn bokk donc mu nekkoon nit ku baax a baax a baax a baax nit koo xamante ni nit ku simple nit ku oyof nit ku bëgg ñëpp euh, bi ñuy dem fële nga xamante ni moom mooy inauguration jam ñaajo bi man ak moom ñoo àndoon man ak moom ñoo àndoon ñuy waxtaan macha allah waxtaanu àdduna waxtaan bu am solo. mu nekk jënd jus jënd ay boisson yëpp mu ne forcé ma ko ne ma par la force di nga naan ma koy ñaanal yàlla euh, fa mu nekk yàlla nu ko gënal fi mu jógee suñu xel sax dal na ndax euh, dafa dem ci weer bu sell dem ci guddi laylatul xadri euh, demin bi mu dem sëñ Pape ku nekk bëgg naa demee noonu macha allah euh, maa ngi maa ngi maa ngi koy jaal àdduna yëpp yëpp yëpp yëpp bi ñu mujjee gisee euh, yàggul dara ci avant juste weeru koor bi macha allah daf ma woo ba sonn woo ma ba sonn ne ma Kadia yow foo nekk maa ngi lay woo dama la bëgg a gis saa yi ñu waree teg rendez war a ñëw rek affaire bi faussé benn jour ma toog sama kër rek mu ne ma tey par la force dama lay gis mu daal di ñëw kër gi ma ne ko maa ngi kër ga ndeysaan mu toog di ma ñaanal di ma ma Cheikh lu xew tey nii ba nga dikkeeg nii mu ne ma danga maa xeeb rek waaye am na lu ma yàlla may de sama su ma la ñaanalee eh, day dal dégg nga mu nekk loo xamante ne lu ma marke la ci moom saan bi ma koy gungee daa dem ba ci biti daal defaat deux pas en arrière gestu daal di ma xool ko ah, Cheikh yow loo may xoolee nii mu ne ma demaguma sax waaye namm naa la waaye xam naa ne incha allah dinaa la woo donc ci biir woote yooyu ci lañ gëj a déggante ba tey lii am kon yàlla na ko yàlla xare àjjana Gandia kon mi ngi noonu yàlla xaare ko aljana euh, suufu almeeru Cheikh Abdoulaye Yàq ñi nga xam ni fi leen ko denc bi ñu jullee tisbaar ba pare yàlla na suuf soosu woyof ci kawam yàlla jéggal ko yàlla tàbbal ko aljana li nga xam ni itam moo di ab fameem te itam ñu des fi moo xam ay rakkam wala ay magam ak yi bay juram yàlla may leen xolu muñ kon ci turu Seri Latir di administrateur Thiès Info ak képp ku fay liggéey vraiment naqar wi nga xam ne tey Thiès gépp bokk nañ ko ñu ànd ko fii itam ci kër maam Ablaye Yaqin nekk fii ñu koy wax murit gi bu nu jumut vraiment tis woowu yëpp Thiès Info ñu ngi koy partage ak famille bi ci ndigalu Sey Latir di leen ko jaal di ñaan Cheikh Cissé yàlla yërëm ko euh, sëñ Modou Kara itam yebal na fi délégation dégg nga li jëwriñ bi wax euh, kii di le maire de Thiès Est maître Ousmane Diagne ñëw na fi ànd ak délégation am fi taxawaayu rafet euh, le ministre Yankhoba Diattara aussi ñëw na fi waa poste ak ñeneen ak ñeneen ak kilifa yu bari bu nu limee dañuy juum waaye mën nañ ni Cees gépp taxawu nañ ko ak fu nu mën a fare ak fu nu mën a bokk muy diine muy tarixa ñoom ñëpp ñëw nañu macha allah ndax nag ki génn àdduna dafa nekkoon koo xam ni euh, doomu Cees la woon nekkoon koo xam ni itam ku bëggoon Cees la ku amoon fierté ci Cees ndax tey boo gisee monde sportif bépp a fi daje moo xam ay club yi moo xam ak discipline bu mën a doon ci wàllu sport kenn ku ne gis nañ la waaye dafa fekk ni émotion moo demee noo xam ni mënoo tàndar ñëpp micro waaye macha allah cees gépp taxaw nañ kon dañuy ñaan yéen a yeeg yiw gi yëpp yegg ci bàmmeelam te cat bañ ko jiitu ci bàmmeelam également kon mbokk internet yi xam naa fii la ñu yem rek ci ay témoignages yoo xam ni équipe bi ñëwoon na ànd ak soxna Kadia Sall ak ki nga xam ne moo di Bàcc Fall di le grand technicien ñu àndoon vraiment doon dëtmal mbokk internet yi mbokki Thiès ak fu mu mën ne ci àdduna génn àdduna ak Cheikh Cissé Cheikh Oumar bu nekkoon kenn ci cees kon nan àndandoo ñaanalaat ko yàlla te xam ne fi kenn du fi des demal maa ngi ñëw la kon mbokk internet yi ñu ngi leen di bàyyi rek ngeen seetaan li nga xam ne moo di témoignage yi bu ko defee ngeen dolli ko ñaan waaye ngeen gën a xam liggéey bi mu taxaw woon ci yoon wi nga xam ni fa la nekkoon muy yoonu murit ak parti bi nga xam ne moo di PVD rawatina nag euh, li nga xam ne moo di biir Thiès ak euh, mbooleem association bu mu nekkoon moo xam sportive la xam association de quartier la entre autres ñu ngi leen jaajëfal di leen ñaaneel wax dëgg àjjuma ak jàmm di ko sàkku ci yéen jërë ngeen jëf